émission Kouthia tey nag euh, di le 21 altine décembre nañu toll ci douzième mois ñu am mbégte ak contentement bu mag di yaatu di ko gërëmal képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show tey nag ki nekk ci réalisation bi moom cundum la moom kese la di Pape Samba Thiam jàkkaarloog tamit ki nga xam ne moom cundum la moom kese la di yaawo Gervais ci ñaari caméra yi large ak central moo ko yor Abdoul Aziz Thiandoum ak ki nga xam ne ñoom toog ñu ngi yëg ak a wàcc pour mun a fexe lépp daa dee yemb ci teewaayu nag ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci équipe Kouthia Show yëpp dale ko ci Gofal ak euh, Abdou Fagay nekk ca percussion ba Abdoulaye Ndiaye ci ambiance ak Baba Ndiaye Horatio fàttewuñu tudd ci ambiance ba ñoom ñëpp ñu nga ca biir Jamel Ba protocole ak dédicace Fatima Evans Kara ñu ngi koy yor sécurité bi di nuyu tamit mbay commercial ñëpp bu ñu àndee ja lumière bi nga xam ne mooy tàkk di leer ba lépp daa day yemb moom moo ko waral kon ñu koy gërëm di ko sant ci turu Télé Futurs Médias ak ci Kouthia yi xam ngeen ne week-end bi nekkoon na week-end boo xam ne nag tension bi politique tàngoon na lool maanaam ci diggante Lamine Diack ak ñi nga xam ne mooy président Macky Sall ak li am ci diggante journaliste yi ak dem digg ak dikk waaye ki nga xam ne moo bind tool yi ñu naan ko Stéphane Madar nga xam ne santam Madar la kooku ci boppam dana ñëw tey wax li tax wax jooju mu delluwaat ginnaaw wax waxeet moom tamit dina leeral li tax mu bindoon loolu dana danañ ca ñëw Yaya Jammeh bi taxaw ne état islamique la taxawal ci biir Gambie képp koo xam ne da ngay def mbumbaay war a artiste bi doon jógee dem fa ca Gambie di yaataa yimbe dañu koy dakkal ndax réew ma ci boppam dañoo jublu def ko si lépp ci diine loolu la ko waa Gambie dundee Yaya Jammeh dina ci wax waaye tamit dina ñëw ci li nga xam ne moo waral cool yi ndax xam ngeen ne week-end bi dafa tàngoon jër ci li nga xam ne mooy politique waaye ci côté culturel tamit tàngoon na lool ndax li nga xam ne moo doon prix bi nga xam ne moom la El Hadj Habib Bilal doon jël ci waa Hackon Africa di benn mbootaay boo xam ne comité bi dafa yaatu ndax réew yi nekk ci UMOA kenn ku nekk am na ku la ci représenté ñu représenté li xam ne moom mooy UMOA ak CEDEAO ñoom tamit sargal na El élage Habib Bilal ci biir émission Kouthia Show ci teewaayu première dame bi nga xam ne mooy Nigéria waaye ki ko fa wuutu ki ko fa toogal di ministre des affaires étrangères bi moo jógee ca Niger daal fay ñëw ak mboolem boo xam ne yaa ngi ci UMOA ak Youmou ñu représenté ko fa mu te mu toog mbir bi nekkoon lu doy waar lu yéeme incha allah xam na ne di ngeen ko seetaan extrait ci biir journal télévisé bu 19h30 bu émission bi jeexee bu ñu demee ba 20h ñëwaat ci incha dossier bu gën a yaatu mbokk gërëm nañ leen sant nañ leen waaye tamit di leen xamal ne prix bi benn prix la woon boo xam ne dañ ko waroon jot ndekete waa ji daf ñu doon defal surprise ci biir ndax ndekete prix yi ci benn ñetti prix la prix bu njëkk bi nag ñu tuddee ko bâtisseur africain maanaam Rokan euh, Africa 2001 nañ ko démarré ba 2015 di fukki at ak ñeent yoo xam ne képp kuy góorgóorlu ci sa liggéey ba mu fës ñoom dañu lay décorer muy Hocken Africa bâtisseur africain ñu ne déet na waay waa ji ne loolu doyul parce que comité bi nee nañu Kouthia def nañ ko ambassadeur des comédiens et humoristiques pour la paix en Afrique maanaam comédiens yi nga xam ne ñu nekk ci zone UMOA ak CEDEAO Kouthia mooy seen ambassadeur ci temps yi nga xam ne conflit yi am ci dëkk yi nga xam ne dafa am guerre war a fa am misère war a fa am ay yëngu-yëngu ñoom dañu fa dem ci moment élection war a après pour jéem a jàmm def ay jàmm ci biir dëkk yooyu moo taxit ñoom ndomba tànk boobu takk nañ ko waaye daj dëpp bi moom mooy prix bi nga xam ne ñu bëri te jugee woon ci réew yi nga xam ne nag ñoom ñoo sori daana ñoo jël seen pri mooy premier prix première médaille d'or d'excellence en Afrique lii nag moo xam xadd kaaba ga di prix boo xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri li leen taxoon a jóg moom la ñu yóbbu waaye ñaari prix ñu ci mooy yóbbu mbir mi foo xam ne dafa kawoon suñu njort kon mbokk yi ñuy gërëm di sant képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show jàppoon ci na ma ko waxee ci journal bi xam naa da ko seetaan prix yi dañ koy dëjee ñi nga xam ne jàpp nañ ci carrière Kouthia Show fi ñu koy tàmbalee mooy dem ci ki nga xam ne moom mooy Sidi Lamine Niass mi nga xam ne euh, euh, télé ak rajo Walfadjri mooy télévision bi nga xam ne moo njëkk bëtt antenne yi bu weesoo RTS moo njëkk bëtt antenne yi feeñ ci Afrique feeñ ci Europe kon Sidy Lamine Niass moom tamit ñu ngi koy delloo njukkal di ko gërëm di ko xamal ne ko wax dëgg yàlla moom bu ñu wanewaloon ba àdduna xam ñu bu TFM ñëwoon tamit moom mu nekk fi moom moo jiitu ca néeg bu lëndëm ba kon ko la jiitu fi ngay néeg bu lëndëm moo la woon fi ngay toog kon ñu ngi koy gërëm di ko sant moom Sidy Lamine Niass président directeur général bu Euh, Walfadjri mi nga xam ne nag ba ñuy wax Wall Street nga xam ne rajo ci boppam da doon yem ci Sénégal moo njëkk a bëtt fi nga xam ne mooy frontières ba rajo yi ñu koy dégg ci Afrique ñu ne dén na waaye mu génn télévision Walfadjri ñu nekk fa def émission bu tudd Nepad musical muy génn ca Côte d'Ivoire ca Gambie ca Mali ca fépp ba jaar ca Italie ñu amoon fa nag de d'audience bu yaatu kon mbokk yi Euh, wax dëgg yàlla ñu ngi delluwaat suñu kóllëre ak suñu wëlëre ci Sidi Lamine Niass bi nga xam ne wax dëgg yàlla tey bu ñu tollee fii moom moo ibboon bunt yi ba wane ñu waaye lu jiitu loolu RTS jaar nañ fa wax dëgg yàlla waaye carrière Kouthia bu fësee carrément jaar na ca Walfadjri kon Sidi Lamine Niass ñu ngi koy gërëm di ko sant moom tamit dañ ko bàyyeelee tamit delloo ko njukkal ci prix bi ki ci topp nag ñu boole ko ñaari président yi nga loolu incha allah rabi bu soobee yàlla ci at bii ñu dugg ci 2016 bi danañ ci xool bés bu rafet boo xam ne danañ ko ci tànn daana koy def nag sargal boo xam ne tous les paysans yi nga xam ne ñoo nekk ambassadeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci zone UMOA ak CEDEAO dinañ ko teewee nit ñi fekk ko ñu def ko ba ñëpp daal ciy bëgg ñu xam ne nag góorgóorlu mooy tax nga doon góor waaye jigéen jigéenu tamit mooy tax nga doon ko mu doon ay góor bu ko jigéen gañoon da koy jigéenal ba mu doon jigéen mbokk tey loolu mooy li nga xam ne ak nan ngay def pour am prix yan comportement ngay def pour am prix lan moo tax nit ki war a am prix ku ñuy jox prix kenn koy tànn war a fukki nit war a téeméeri nit sondage yi tax nga am prix loolu yëpp dinañ ko ñëw ci biir émission waaye jàppale ne émission la boo xam ne tey incha allah ñu ngi ciy gërëm di sant ñëpp di am mbégte contentement bu amul app ki ñu njëkk woon ak suñu xarit la di mbay mi nga xam ne wax dëgg yàlla depuis ci suba mu ne ma samay bagage pour dem gàmmu ji ma ne ko mbay doo dem gàmmu ji léegi ndax liggéey baa ngi tax duñu xaar te balaa ngay dem gàmmu da nga rangé li nga waroon mbay waaw mais gàmmu ji la eh. lalal basang eh, eh ban basang. wuyal lalal basang. <laughs> wuyal. lalal mbay mbay waaw mbay ban basang ngay lal. cek cek cek cek lalal basang eh, cere rek cere rek lalal <laughs> ku ñuy lalal basang. loolu ma jaaxal. ku caa la ñuy lalal basang. xoolal lalal produit ba alma. al ma basang bi teg ko nii waa tegal nii basang bi rek balaa nga koy lal range lépp madaar am na coow de est-ce que xam ki bind affaire Lamine Lamine Diack bi madaar la sant madaar ki bind affaire bi madaar la sant Estafane la tudd baal ma baal ma kay madaar sant sant la waaye ma moo bind moo wax moo waxet madaar nag mooy fekk tilim satal ko moom santam rek day satal li Lamine Diack waxoon ci Laminam. waaw kii moo ko setal. moo ko setal Madaar. kon soo fay ne soo bëggee. Eh, fen bi yow tamit ko kilifa la yow tamit. Ah, déedéet man laa wax. Ah, kon li may kon samay fen. Ah, eh, Madaar mën naa see rax sa bëgg. waaw déedéet booy booy yow yarul. rangel say affaire rek te bàyyi nga wax waaw rangel tamit yow tamit ay tamit ah. voilà képp koo bu fàttali yi dañu lay dégg dem laaj li nga wax de dañu lay. waaw waaw qu'est-ce qu'il ñu ne il a t'a traité de menteur. Stéphane Toubab ab bu mag la de. dafa ah, dégg dayo de léegi nii man dafa dégg dayo parce que keroog laa doon chinois yi naan. <laughs> chocolat chaud chinois ma Koutia. ah dañu ma jaaw rek. waaw Koutia. nga leen waa Koutia est plus gros que moi. waaw <laughs> mais booy gis bi bii bii démb laa ko essayé. moom laa déjee booy bii garaaw na. moom moom bii moom xaw ma loo ci def war loo ci wax. waaye bii moom moom arrêté ko delloo chocolat parce que bii moom mu dox carrément. ma leen moo tax ma ne ko ma ma ma ne waaw wuyu ma ñaar yi may jox. waaw man maa yëkkati sama xaalis def ci ñaar. Ah, parce que guddi gi nekk dégg naa nga bënn benn naan. ah bul wax loolu nag. ah non jam jam nee na ma sa waa ji daal produit lay muutu rek te dëgg la. bii nag moom bii laa nar a yóbbu gàmmu ga bu ko yóbbu gàmmu ko xam naa li ma la wax da ngay am problème yow fi mu nekk nii problème ma ngi lay topp kay yow yow instant bi dégg naa yaa ngi toj dëkk bi Afrique sax yaa ngi koy toj yow bàyyi mu yóbbu ko gàmmu ko rek ko maro bi la ak a garaaw ak garaaw bële bële mais ceeb lay bañ boo lekkee ceeb ba naan ko day mel la lekk woon ceeb da koy reesal ba pare et puis da ngay non booy booy booy warga bi garaaw na saaman bi lii nag ñoom dégg naa foire ba perte ñu ñoom <laughs> dañoo jaay ba jaay ñu ko doon jaay. waaw moo tax baara muso. baara muso gi nii. day la et puis kaama xamal la. koo lamb poosam léegi yaa ngi ci fekk sachet poobara war a kaani. dégg naa dégg naa même mburu mburu mburu suñ la jaayee mayonnaise. waaw ak leneen. waaw donc da ciy suuy. ah très <laughs> poobar bii nag ak kaani bi ñoom ñoo ci ëpp solo lan la dafal defal. cey cey kaani bi. cëy kaani bi waaye nag xam lu ma ah. boo ko defee sa poche doo fexe ba mu bënd du bënd tant que mattoo ko dagg ko du bënd maa doog a xam lu tax ngay ngay ngay <laughs> ci kaw yow tamit nitu internet nga nag yow waaye tamit mooy mbay tamit <laughs> waaw yow sa waay sa waay wax nga dëgg nag waaw parce que moom da ko ci yokk mu saf waa mbay yoo sama benn waay. Ah. daawul lekk graisse moom yàpp da doon lekk rek dina ma graisse mais nee na booy boo lekkee yàpp ba romb graisse bi cof ci kaana gi nee na xeetu ñam boobu xamul yàpp la xamul lan la mais booy kaana gi day yokk appétit de. yàlla ma waaw. si kaw warga. waaw kaw da koy booy mun a ci seen safal ko yow tamit bàyyi li ngay def xoolal kaan ah. kaane ni den ak madaar rek <laughs> waaw mënu ko yàqal dara kii mënu ko yàqal kii mënu ko yàqal waaw mu taar baa ngi noonu kii ci laxas la ay laxas boo demee dibiteri yi. dégg naa moutarde yooyu ñu daan def si mbuus. waaw xew yi la ku ko defati dañ koy ëf xolal. ku ko defati ñu tëj la feebar bi ne ci yow dugg ci mbuus bi nga def ci moutarde boo koy lekk. ku ko defati ñu tëj la waaw baaxul. léegi su ma paree si lii. dama lay dama lay nuyu di gërëm. waaw dégg naa dañ la dégg naa ah Afrique yëpp yow la tànn. waaw ne la yaa dàq yow yaay loolu kontaan naa si bi même démb nelawuma dara. waaw sponsor yi fi jaar. yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi lay félicité. waaw nee nañ waaw Tekno ngi lay nuyu. ñoom Tekno petit. petit ngi lay nuyu. Madaar. Kaani Poobar Baara Muso Pat bi. Mera sponsor yëpp woo nañu may naa yaa ngi wër di encaissé rek. déedéet loolu leer laa la wax yaa ngi wër di encaissé yaa nan ku caa def fet yaa ngi wër mbay bàyyi li nga def basang bii nag laa bëgg nag lu tax nga dugg si ak sa basang man basang bee ma jaaxal. <laughs> moo tax mu la la ku caa lalal basang bàyyi ko ma. ma ba mu taalal basang lalal basang lalal basang. lalal basang ba mu taal. bay lalal basal buy hey lalal basal ba mu taal teg na sa tànk lalal bay lalal basal ba mu taal bay lalal basal bay mu taal bay yow lalal basal Maria, Maria Chantal. am nañu mbégte ak contentement bu mag di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission sant nag sponsor yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gunge di Madar ak ki nga xam ne nag moom mooy Stron Check Baara Mousso nga ca foire ba ak Zaman bleu ak Zaman marron ñii ñoo ñuy gunge ci émission Kouthia ak ñi nga xam ne ñu nekk ci pause bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ànd ak bi nga xam ne nag moom la ñu am ci prix boobu nga xam ne prix africain la di wax nag suñu papa Alaaji Cerno Samba Sa Morabi fu ñu toll ñu ngi wax amin ndax gis nañu seen ñaan ñu ngi koy nangu di wax amin alaaji Cerno Madani Muntaga Tall di xalifu Cerno Muntaga Tall ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di am mbégte contentement ci alaaji ah, Cerno Bokar Kandé nekk chef religieux nekk foofu ci Kolda ñu ngi koy ziar ak Cerno Nuuru taal nekk ci Sacré Cœur mi waajal bësam boobu le 8 ak le 9 janvier ci Louga Rasoul ñu koy nuyu kii nga xam ne nag taalibeem la moom sës ci moom rëkk ziar nañ ko bu wér foofu ca Louga alaaji Cerno Abdourahmane Bari ca Bogol le 24 décembre bii di ñëw mooy nag gàmm gu mag bi nga xam ne maa ngi koy amal ca Bogol yàlla ci yàlla may ñu fekk ko jàmm te egg ca jàmm alaaji Cerno Hamdu Aw xalif bu Celaaw dëkk ca Njum yàlla dëgëral taxawaayam tamit yokk ko tamit yokk bu kawe ndax tamit ku baax la alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu kaamin suñu papa ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram ak Adja Mam Boussa Cissé alaaji Ousmane Ndiaye nag eh, dañu koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram wax dëgg yàlla li mu doon ñaan nag wax dëgg yàlla waxoon na bëgg naa Sénégal Euh, du ma la ci ñaanal dama lay ñaanal pour nga génn réew mi génn tamit ci Afrique gis nañu ñaan bi moom alaaji Ousmane Ndiaye waale kaamil dëkk ci Achille Angle Mousse ak soxnam Adja Mam Boussa Cissé ñu leen di wax nag vraiment chapeau di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu ak alaaji Bassirou bu xam ne yaa nga ci HLM Guédiawaye rawatina sëñ Abo Mbacké ibnu sëñ Fallou Mbacké mi nga xam ne nag euh, mati boppam ba mu demee foofu yóbbu xéewal ga boppam rek la tudd tudduma loolu maa ngi koy metti lu ba tey di ko ñaanal jàmm ak teranga ak wér ndax sëñ Mbaye Sy Mansour wax dëgg yàlla euh, euh, euh, waxam dafa am solo ndax koo xam ne day bàyyi xel li nga xam ne mooy am ci télé yi di ci def tamit ay points yu am solo dañ koy ñaanal fan bu gudd ak yaram yàlla may ko jàmm wéral ko bu baax a baax a bàyyi ko njabootam ak taalibim yëpp yëpp sëñ Mbaye Sy Mansour fan bu koy ñaanal mu yàgg ak ñun yàgg tamit ci tarixa bi ak sëriñ Maodo si bu maam Abdou Aziz rabbi taala yàlla yàlla guddal fanam Chérif Ahmed Tidiane Aydara yàlla yàlla guddal fanam ak suñu papa Alaaji Seydou Sow dëkk ca Euh, parce que di yeewoo ca zone B góor gu baax ngi nii di taalibe sëñ Fallou 100 pour cent yàlla na ko yàlla defal jàmm ak Serigne ma Sougou Waadaan nekk ca Waadaan ca Kébémer moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm tamit Cheikh Omar Tall nekk ca Sokone di nit ku yàlla baaxal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak Abdou Karim Mangane ak ñaari soxnam Sadio ak Fatima ñii ay wëlër lañ ñoo xam ne ba ñuy tàmbali ba tey du ñu jóg di leen nuyu di leen gërëm ndax dañoo baax rawatina Serigne Babacar Kayre xalifa Alaaji ñu ngi wax amin fu ñu toll Serigne Maodo Sall bu sëñ nekk foofu yàlla yàlla guddal fanam cardinal Théodore Adrien Sarr nag bi fi nekkoon cardinal dama koy ñaanal fan bu gudd ak wér ndax moom tamit du gëj di ñu ñaanal bu toogee ca jàngu ba di wéetal suñu borom yal na ko yàlla defal jàmm ak suñu yaay suñu marraine di maître Fatima Fall responsable politique nekk ca PDS yal na yàlla guddal fanam ak suñu papa suñu xarit suñu sëriñ di sëriñ Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Tivaouane di yeewoo ca Budi ndeysaan ko am Euh, wëllëre ngi nii di Serigne euh, Mansour Sarr ñu koy ziar ak soxna Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum xalif général kulu Tidiane bésam bii nga xam ne ñu ngi cee ñëw di bésu gàmmu bii nga xam ne wax dëgg yàlla Euh, joxe na ci ndigal pour nit ñëpp fu ñu nekk ñu am jàmm xéewal gi daa dee tas fu ne nit ñi daa dee xéewalu barkelu moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram di ko ñaanal tamit bépp xalif généraux boo xam ne yaa ngi yàlla dafa la jàmm saxal la ci di ziar tamit sama xarit Cheikh ko nuyu ak ñoom Asi Sarr waa buddi gi yëpp yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér-gu-yaram yàlla taxaw leen taxaw bu am solo ndax am na njëriñ sëriñ Amsatu Mbàkke tamit ziar nañ ko bu baax di doomu sëriñ Soumirou Mbàkke di xaritu Mohamed Victor nekk ca tali bu mag moom tamit bësam boobu le 16 avril 2016 ñu ngi ciy ñaan yàlla fekk ñu ci jàmm kii nag mooy suñu papa di alaaji Cerno Mamadou Hadama Gaye euh, di xalif bu Cerno Hadama Gaye nekk ca ñankay di ak soxnaam yëpp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu rawatina soxna Adja Hawa Dia ak doom ja Adja Binta gay di madame Dia yaayu Umu Salamata ja ci liberté extension Xari Sall ak Nene Ndiaye ñoom ña nga ca Dakar waaye ña nga ca ay doomu ñànk idi nañu ak ay sata Adama gay di raq ji ziar nañu Adja Fatou Thierno Gaye ñoom ñëpp yal na yàlla dafa jàmm mbokk yi nag Gàmbi yëngu na lu tax Gàmbi yëngu mooy ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh nee na léegi Gàmbi état islamique la waaye teewul ñi nga xam ne ñoo nekku ci yoonu l'islam dañu fay nekk ba tey fet yi nga xam ne dañ ko doon am dañ koy amal ba tey àq ak wareef li nga xam ne jullit ak keneen koo xam ne bokkul ci yoonu jullit ñoom dañ leen di jox seen àq waaye am na soppeeku bu am ci réew ma soppeeku nag Yaya Jammeh ko def ca télévision Gambie wax ak Gambiens yi seen comportement ñu commencé ko changé ndax lii nga xam ne mooy état islamique bi dugg na en rigueur parce que ni bi mu ko waxee ba génn ca télévision ba ca lañ commencé nekk état islamique kon Gambie léegi lu bëri ci ay mbumbaay dootu fa amati la fay moom mooy la am ca yoonu yàlla waaye gàmbee neex waaye yaa jaame eh, eh, asafurla asafurla déedéet déedéet déedéet mbumbaay du amati sabara ak tama kay dootul am allah rek yàlla ci because Gambia léegi dafa soppeeku ta duñu fi tagati tama because dootuñu tagati sabar seen Dakar na door paa Banjul na door paa yooyu dootul amati Banjul yàlla rek Allah parce que du ma wax ne suma dëkk bi bugguma caaxaan dëgg ay tanabeer ay sabar ay gintaaj rasitaaj ay capaa yooyu yëpp naa jeex léegi yàlla yàlla moo ñuy doxal suñu dëkk man wax naa léegi fii ci Banjul du nangu ti yéen Sénégalais yi laay waxa sax musiciens yi nga na ne ñooy bàyyeekoo Dakar di ñëw Banjul di def Mumbai bu yoo ngeen yemale ko seen frontière bi karam mun ngeen toj foofu ba mu toj waaye dootu leen tojati Gàmbi because dama wax ne li ma mu am ci Gàmbi mooy parce que ne tey lépp loo xam ne affaire caaxaan la dana ma déglu de li ma dafa am solo de lépp lu ma wax dama ko jëfe because du ma wootee daka boo xam ne dañ fiy doxal l'islam waaye ñi xam ne ñooy chrétien yi seen église bi kenn du ko laal seen ay fekk kenn du ko laal li ñuy dundee nañu doon dundee kenn du ko soppi ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ku nekk na nga ko bàyyi ak sa diine mu dund li mu war a dund du ma xatal kenn ñi fi war a juli ñi nga juli waaye because sabar tama tanebeer tuur nday dikke papa dikke raxa dikke bajan dikke yow yëpp na ngeen ko dikke fay ci ginnaaw ñi nga am ñoo fi def musique di ci boole tama sabar di yëngut bu yaay ñoo xam ne dañuy dem Sénégal defee ko fa ñun fii du daka caaxaan léegi loolu amatu fi parce que du ma fi woote diine ba pare ñu koy booleem bu mbaay naan ko dégali ma leen wax ni waaw guddi ajuma yi laay bëgg di dégga ngeen di sagal suñu borom ajuma ci guddi alxames nañu tudd turu yàlla mu jolli ci biir Gàmbi yëpp because seen boîte de nuit yi ngeen tabax pour di indi ay mbaay bu yoo ngeen toj ko def ko wanukaay ko lekka raxasu naan ñibbi yu gàtta yi ngeen di faral di sol di nit ñi di julee ajuma di tasante yéen ngeen di sola lu gàtta di ko dangal di ko paccal kenn du ko dangal léegi kenn du ko fi paccal ñaareel li ma leen bëgg a du wax ay waxu caaxaan am na police boo xam ne because maa ngi koy préparé police office one because the people in Ilsegi my people to digest in my policeman ku ko def doo wax ne yaa jaame waxu ko woon ma dee ko ndax dama jël télé bi di ko wax pour ngeen bàyyi yàlla moo wax ne bëggul caaxaan bëggul ndax mbobaay mooy indi tase tase mooy indi xamante xamante mooy indi borosante borosante am na feccoo yoo xam ne Sénégal lay ay bombas ay gincaar taraj taj yooyu caaxaan la jigéen ak góor ñuy te sexuñu dara ay wan ay ajal ko ko fi la aji yéen laay waxal taasukat yi jógee Sénégal di ñëw fi bu yoo ngeen yem fale ci karang ca côté karang gi côté Sénégal ku jege foofu ak tabat bu la jàppee xam nga tami bëri na buum keroog nga xam ne yaa ëpp buum tama loolu leer laa leen wax naa ko ci olof dinaa ko wax ci soose ndax Gambie ay olof rek nekkuñu fi ala mana tiara kerala la barka man din si ara jantal sena ka humbay balen so sole manen ko soole because I don't cry you this is my people nekkul li ma leen wax tey bu ma gënee ci yow xanaa da dof bu ñaarete di nga dina la tàgge léegi de Mumbai laa bokk ngeen ni may jàppee ñi sàcca ñi sàcca ak ñi tox yamba tegu ko tu sabar yi kuma ci jàppal yaak sa sabar lay lakk bu dee mbang mbang la war a cool war dina la ko tool ba nga xam ne foo te xadi nga commencé jàpp nag dina la feccoloo bu heure bi nga ko commencé tega ba guddi kenn du la bàyyi ni may jàppay nit ñaari weer te ko si kaso noonu laay lay jàppa nga fecc ñaari weer ci mbedd bi yoo kese ku ñuy betaa ngay tega tama buñ la jàppee dina la tegal tama juróomi at ci benn place fa nga eh danga dofara xanaa dégg nga li may wax déedéet bëgguma loolu tey laa wax loolu na jeex dootul amati kon people Gambia because it's in my people but it done you my people is brother to thanks you loo am fii si bi yàlla man la neex ma def ko ndax yàlla li mu bëgg loolu def daka day am njiit daka da ngay am fula am fayda président bu waxee benn bu waxee rek nit war na dugal ci boppam kon laa leen a xamal ñaar Gambia du pàccal kenn du dangal kenn du yambaxal kenn du afal kenn du aj kenn du aji kenn du taas kenn du taasu kenn du si lépp loo xam ne jigéen da koy def weexal sa tànka yi mu weex xog cur ku ko weexal dinañ ko ñuulal ba mu ñuul kok am na ñoo xam ne xam naa ñu ngi wax yaay jaame moo sof maa tey maa tey maa moom suma Dakar suma dak eh, eh. stop your piercing my people you're not against that don't my people li ma wax du deñ rajo yi teg affaire musique sax na koy baral bu weesoo xalam ak kese doy na ndax joolaa xamul affaire mbaay yu bari ak soose olof yi ñoo ñoo indi fi ay ginte cere ndawal yooyu yëpp kenn ko fi cere ba koy ndawal jeex na ayca allah allah yàlla kenn la ala ala ala ala yàlla kenn la ala ala ala ala yàlla kenn la ala ala ala ala yàlla kenn la ala ala eh ala ala yàlla kenn la ala ala ala ala ala yàlla kenn la ala ala because yes ala ala yàlla kenn la ala ala yes yes ala ala yàlla kenn la ala ala yes yes eh Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, can Allah. God is one, is primal. Ya Allah, Allah. Ya Allah, can Allah, Allah, Allah. God is our. Ya Allah, Allah. Allah, Allah. Ya Allah, can Allah, kese. Allah, Allah. Ya Allah, can Allah, Allah, Allah. Najoli. Allah, Allah. Ya Allah, can Allah, Allah, Allah. Mofi khaw. Allah, Allah. Ya Allah, can Allah, Allah, Allah. God is one. Allah, Allah. Ya Allah, can Allah, Allah, Allah. Mofi khaw. Allah, Allah. Ya Allah, can Allah, Allah, Allah. kenn du ko dangal ala ala kenn la al kenn du ko batal ala ala yàlla ala ku dangal ñu dang ko ala ala ku ko batal ma ma batal ko e ala ala ala ka e ay tuura sabale dina ay ne kuma kawale dina adala ko ñeew keɗɗa samoje ɗo mo kondomo de yeto gesimamo am nañu mbégte sponsor yi ñu gunge nag eh, ci émission ci Show bi Zaman la warga bu marron bi Zaman bu jaune bi moo gën a garawati bu maro bi ndax benn bu nekk nag bii bu la neexee nga guddee ko bii la bu la neexee nga bëccëg ko parce que bii dafa oyof bii dafa oyof bu la neexee mu fort bu la neexee mu oyof moutarde bi baara musoo ña demoon ca foire ba nee nañu wër nañ ko ba sonn amuñu ko ndax wax dëgg yàlla dañoo yéex a jóg moo taxit ñoom dañoo woote ca Mali conteneur baa ngay daanu boo fa demee fekkaat ko fa ndax dafa manqué ñaari fan yi Historone Cheikh bi nag kenn werantutu ko léegi jaaykatu soow yi sax dañoo mere waa Historone Cheikh ndax laax ci boppam kenn boolatu ko soow xeew yi nag lii ko remplacé madaar moom ci kanam tuuti dañ ci xam dara sant jàmbur la waaye noonu la mën a seetalee dara balaa nga koy xam sa yëre tilim wara sa oto tilim wara sa karo tilim wara sa douche daa dee euh, euh, daa dee euh, tilim wara muy xeeñ madaar bi moo ci mën dara ñoom ñoo ñu gunge suñu émission Kouthia Show ñu ciy nag gërëm bu baax a baax a baax suñu papa yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel rawatina nag ki nga xam ne mooy suñu papa bi nga xam ne moom mooy ziara Thierno Euh, euh, Bokar Kande ñu ngi koy ziar bu baax Thierno Bokar Kande Alpha euh, Alpha Bokar Kande nekk nag foofu ca Kolda le 17 mai incha allah 2016 moom Thierno Bokar mu ngi wax nag bésam bii bés la te nag képp koo xam ne nag yaa ngi liggéey Télé Futurs Médias moom suñu papa defal jàmm di ziar tamit Thierno Bachir Mountaga Daxa Cheikh Omar xalif général bu Bokar Kande nag kii mooy sëriñam nee na bésam boobu moom moo ci teew incha allah yan yàlla may ñu egg ca jàmm di ci ñaan tamit xéwal bu rëy buñ ci eggee foofu ca Kolda Aysatu Dramé Marietu Ngom Aysatu Fall Pierre Mendy euh, Ndiaga kan ak Jo Sakhir Dieng Marietu Seck Aïcha Thiam et tout le personnel de la gare maritime ñoom nag nee nañu képp kuy jugee dakaar di dem Casamance doo yëg coono gi ndax ci bato bi ak avant ngay dugg ci bato bi dañuy seetaan Kouthia Show ba booy dugg ci biir bato bi stress bi nga amoon dafay dañ ñoo nañ bëgg ak contentement nañu àndal Khadija Lam di présidente association Sala et sa sœur Jinda Lam ñoom am nañu mbégte contentement bu mag a mag a rawatina seen yaay ñu naan ko Aïda euh, Ban Kan ñu ngi koy gërëm di ko sant fu ñu toog ñu ngi seetaan émission Kouthia Show moo taxit Léna Seck gérante Zaki Traiteur kooku nag dañ koy gërëm léegi ndax Léna Seck mii nga xam ne mooy euh, gérante Zaki Traiteur euh, ñu ngi koy nuyu ak Brigitte ñoom Rosa ñoom Véronique ñoom babet ñoom Fatima Ndiouk ak Mami Touré et son comptable Mamadou Dieng depuis Sacré-Cœur 3 VDN ba extension ñoom kontaan nañu lool lool nee nañu bu ñuy togg bu émission Kouthia Show jotee dañuy am mbégte contentement ba nga xam ne dañuy yàkkamti togg bi ba mu gën a neex ngir client bi kontaan ndax ñoom day fekk seen xol di neex moom leen a sekk sax incha allah nee na vendredi dina ñëw indi décoration am ci Kouthia Show maanaam defal ñu ay xéewal ak ay jus yu neex ndax moom nee na amul alal bu mu yëkkati jox ñu waaye mbégte bi muy am buy togg Kouthia di daw kii nag xam ko moo tax ma koy gërëm di ko sant ndax Léna sekk bi dafa toj Côte d'Ivoire toj Mali toj Sierra woon jaar Nigéria jaar France jàngee Maroc ci xam-xamu togg ak bu sell moom bu ñu ne def ñuy vraiment defal sargal moom Léna Seck dañ koy ñaanal jàmm ndax jóge Thiès ñëw Dakar di daan dooleem moom gérante Zaki traiteur yàlla na ko yàlla defal jàmm ñoom Brigitte Rosa Véronique Babette Fatima Mami Touré ak comptable Mamadou Niang ca Sacré-Cœur 3 VDN bi incha allah ajjuma ñoom la ñuy dalal ci ay teranga yoo xam ne dañ ko fas yéene jóge ñu leen di gërëm ak corps enseignant de l' euh, de l' école Alfred et Bernadette ex le pardon ñoom ñu ngi leen di nuyu monsieur Sow Nogoy Diallo et sa maman Asukan euh, Badiane Soxna Amar Tuku Bayu euh, Bayu Khadija bébé Elage Dior Dof ñu ngi koy nuyu ak le petit Moustapha Ndiaga Matar et toute la famille Diallo e saw Ismaïla euh, depuis Mbour de la part de monsieur Sow bon rétablissement à maman Assoukan de la part de Horatio ñii ay wëlëram nañu ñuy nuyu tamit bébé Ndiogou Diouf fan si Kouthia doomu Yaram Diop depuis euh, Kër Ngor Soda saar depuis Yaraax Kër Ngor vraiment ñii ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye Serigne sàmba Touré mii nga xam ne nag euh, sama mbokk jolof-jolof la ñu ngi koy gërëm di ko sant ak yaayam bu euh, waajuram bu jigéen boobu di Adja Seynabou Aw yal na ko yàlla defal jàmm samedi le 13 février 2016 sa sanc ba Njóobeen Rufisque moom lay def nag euh, gàmmum googu yàlla ci yàlla may ñu fekk ko waaye nag kii suñu wëlëral di Habib Mbeng sopp sëñ Babacar Si nga xam ne ku ne Habib Mbeng pour yëkkatee loxoom rek sëñ Babacar la ci teg moom ci boppam tamit bëgg Youssou Ndour bëgg groupe Futurs Médias bésam boobu nga xam ne mooy gàmmu gi daf ci am mbégte ak contentement di ko partagé ñun mu ngi ci woo képp koo xam ne wax dëgg yàlla soppee Kouthia nga ndax xam na ne émission wax dëgg yàlla macha allah kilifa yi dañ koy seetaan moo tax ñu barkelu ci bés bi di bésu sëñ Babacar si samedi le 9 janvier 2016 abi mbeng na sa xel dal incha allah yàlla na ci barke ndax ku baax boo demee ba dë euh, euh, du mooy sabar yëkkati ay tànt sëñ Babacar si ci boppam moo la ci jox ndigal yal na yàlla def ñu egg ca bés bi léegi nag mbokk yi dañuy dem ci li nga xam ne moom mooy prix bi lu tax ñu ñëw ci prix bi mooy artistes yi nga xam ne ñoo nekk ci télévision yi ak artistes yi nga xam ne ñooy def li nga xam ne mooy comédie tey dañu war a gën a taxaw pour xool li nga xam ne moom la ñuy def ci ban yoon nañ koy tàggatee mu dem kanam ndax gouvernement dugal na ci loxo ndax état Sénégal bi état del Sénégal ba tey bi fi Senghor jógee ba léegi ci la artiste tumuranke ndax Senghor moo nekkoon ki nga xam ne wax dëgg yàlla président culture la woon ndax poète la woon jàngkat la woon borom xam-xam la woon moom dafa mës a jël culture jox ko gëdd soraano bii nga xam ne mooy danielle Sorano wax dëgg yàlla moo njëkk am esprit tabax ko pour artiste di fa daje moom rek moo doon génn ci président yi nekk ci réew yi Sénégal ànd ak ballet national fu ñu dem ñu ñoo ñu jiitu ko fa ànd ak moom def fa spectacle mu rëy mu présenter artiste sénégalais yi ba ñëpp xam leen loolu bu fi Senghor du mooyoo ba tey ñi fi ko fi remplacé wax dëgg yàlla topp ñu ci tànku Senghor te Senghor dafa def loo xam ne dafa am solo artiste nag bu ñu jëlee ministre de la culture jox ko ministre mu dem assemblée nationale di fa débattre li nga xam ne mooy projet de budget maanaam xaalis boo dugg foofu ba ma cay wax daf ko teggi wax ci communication ministre de la culture bii fi nekk wax dëgg yàlla man personnellement yëgu ma ne ministre de la culture am na Sénégal ndax lu tax mooy am na artistes yoo xam ne booy xaar ñu ñëw ci yow du ñu ñëw yaa war a jëm ci yow parce que ñooñu ñoom ñoo la fal ñoom ngay gérer léegi nag li war mooy ku ne na def sa li ko war yàlla def li ko war li yàlla di def nag moo gën a foor yow li ngay def mais jàppale doomu aadama doo toog nit di def dara di góorgóorlu ti ministère bu nekk bu artistes yi euh, sponsor euh, bu sportif yi gagné da ngay gis Matar Ba war a nga gis benn ministre boo xam ne moo yor loolu taxawu leen jàppale leen waaye artiste dafay am ndam ñu sewal ko toroxal ko duñ ko sax yéeg war a balaa ñu koy dimbali maar day taani am li fi gaañu loolu daf war a jeex li ko war a jeexal nag mooy artistes yi nañu am jom gëm ne ñii nga xam ne ñoom ñoo yor culture bi du ñoom ñooy tax ñoom ñu tekki góor góorgóorlu gëm seen liggéey te di koy def te bañ leen a xaar parce que ñii boo leen xaar fii ngay dee ñun nag ñoo war a am jom góorgóorlu xam ne état boo basé wu ci moom dig naa la xaar naa la waaye dafa am ay yoo xam ne boo koy def njaaxaana nga war a tëddee jàppale ñii bàyyi nii jox ñii toroxal nii may ñële xañ ñële loolu ministère du ko def dangay jàppale nit ki taxawu nit ki parce que lu toll ne xay kon ñii duñu ay caaxaankat ñii joxe affaire bi mais MOA nañ nekk CEDEAO nañ nekk amul benn représentant ministre de bu fa teew waaye fu première daam bu Nigéria yónnee ministre des affaires étrangères mu daal di ñëw di ministre d'état teewee benn manifestation wax dëgg yàlla yow ngay ministre war nga fa teew doone yëgoo ko parce que communication yi jaar na fi mu war a jaar ña représenté IMOA ña nga fa woon waa CEDEAO ñu nga fa woon ña représenté Hadjibou Soumaré ña nga fa woon waaye yow nga la yow ngay ministre de la culture ministre des affaires étrangères jóge ci dëkk ñëw ba ci dëkk teer woo ko tertu woo ko laajtoo ko lu fii lijjanti yow yaa am gàcce waaye moom amul gàcce ndax jël si na prime delluwaat ni mu ñëwee woon <laughs> ñuy wax nag nañu gën a jox at ak culture ñii nga xam ne nañu jàpp ne culture musique rek la ak sabat ñu ngi nax seen bopp culture mu ngi ci lépp yattkat bi dessinateur bi ak ki nga xam ne day bind ñëpp ñu ngi ci culture ngal la état yi nañuy sóoraale culture di jox culture ñi nga xam ne ñoo ko xam di jox culture ñi nga xam ne ñoo ko moom ñun de wax dëgg yàlla suñu ministre bi nga xam ne moo fi nekkoon di Youssou Ndour ba mu fi toogee ab diir rek am na artistes yu bëri yu yëg soppeeku seen seen yëg-yëg moo tax ba mu fa jógee dañ koo mettitlu ndax moom en tant que artiste xam na li artiste di daj ak li artiste fi ñu ko war a dimbalee ndax da ciy dund waaye ñu mel noonu nag da ngay jël ñu mel noonu taf leen seen wet Omar Pène Thione Seck ak ñooñu dañu nekk ñoo xam ne booy ut conseil technique da leen di jël même bu ñu xëyul dem ci bureau nga jël leen di leen laaj li xew ak ñoo war a jàppale ñuy nag mettitlu li nga xam ne moo fi am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci réew mi ndax nag wax dëgg yàlla ministre de la culture liggéeyam man mii di wax man Kouthia maa jël responsabilité gisuma ko lu tax gisuma ko mooy première sargal Kouthia teewu fa deuxième Kouthia di def tournée yëgal ko ko mu jox som boo xam ne wax dëgg yàlla boo génnoon ci mbedd bi léegi tàllal loxo balaa deux heures de temps nga am ko ñu ne ko waat jël enveloppe delloo ko ndax ñun duñ jël loo xam ne dang koy jël ñu bind ko si archive bi te amul benn njëriñ ma leen di wax nag c'est pas trop tard pour ñu dellu ci seen xel fii ci réew mi ku fi liggéey ñu wax na yaa liggéey ku liggéeyul dañ lay wax na waaye ministre de la culture bi fi nekk man de xoma keneen waaye man de yëguma présence am grand théâtre nag xumbaay bu fa am ma nga fa toog anniversaire oo yaa ngi ko fay gis waaye loolu benn bés taxul ñuy wax da nga war a topp nit ki artistes yaa ngi dee ñu ngi feebar ñi ngi am ay AVC ñi ngi am ay paralysie ñi ngi loué amul benn artiste Sénégal bu ñu dee cinquante quarante yi yépp dañuy loué dix yi ñoo ko liggéey mais loolu ñun dañuy def suñu devoir bu ñu fayee suñu àq nag moo tax ma wax artiste dañu am fulla ak fayda di laaj seen gëdd doo fay comédien bi cent mille francs bëgg a fay musicien bay bag trois cent mille nan kee parce que bag la déedéet la nga fay Wally Seck moom nga may fay la nga fay Youssou Ndour ca kaw seen ba man nga may fay parce que li muy def laay def li muy def gënul neex li may def kenn ku nekk dama koy jox xam loolu bu ñu ko defee léegi ñu émerger président Macky Sall nag li ma lay wax nii dama bëgg nga woo sa ministre de culture wax ak moom ndax tamit plan émergent Sénégal nga wax du économie kase du peche du sport kase ci nit ku nekk fi nga nekk da nga war a émerger kii nga dénk lii nag maa ngi lay waatal ne li boo ko woolu yeddu ko lii nga jëm nii du jëm kër parce que artistes yaa ngi jooy artistes yaa ngi mais war warul jël grand théâtre di ci fay xaalisam 5 millions pour dafa kii loolu du yoon bu fi Senghor nekkoon loolu kenn du ko nangu nañu yombal artistes yi grand théâtre soraanoo di leen ko jox nañ leen dimbali jàppale leen ñu mën a suqali ko parce que amuñu 5 millions yu ñu fayee grand théâtre loolu dañ ko war a xeex ñun artistes yi war ñu fexe nag ñun tamit suñu bopp am benn député war a ñaar yoo xam ne ñoo fay toog ñu xam ne kii artiste la parce que député assemblée nationale 10 000 voix kese la te yow da ngay jaay plus de 20 000 exemplaires. kuy jaay 20000 exemplaires nag raw nga ñaari député wala ñetti député kon nañu gëm suñu bopp xam ne yeneen élection législative yi ñëw na artistes yi booloo dajale kenn war a ñaar mu takkal leen ndomba tànk mu dem foofu xeex ak ñoom jàkkaarloo ak ñoom sinon kenn ñu tàkk boo xamal ko nag prix bii nag ñoom buñ ko xeebee ñun xeebuñu ko parce que Afrique ci boppam moo ñu ko jox ñu ñu ko jox du benn nit bu toog këram rek jaaxaan bind lettre comité la boo xam ne ci zone UMOA kenn ku nekk am nga ko la fa représenté te chaîne télévision yu bëri daal teew fii may liggéeyee bu weesoo télévision Futur Média amul benn ku ci wax rajo ba waxuñu ci du yoon pourquoi RFM waxu ci dañuy xaar ñun Kouthia ñu dem fekk RFM c'est pas normal l'observateur lu tax waxuñ ci ah am na yoo xam ne nag dafa rafetul boo nekkee ci place boo amee ndam dañ la war a sargal yëkkati la parce que ndam yi du ndamu Kouthia Kouthia show la lay xew ci Kouthia show waaye lu toll ne rajo RFM nekk ci dakaar mu am journaliste bu def culture nga topp politique bi rek bi nit am ndam sa rajo nga jëm koo bës da nga yaakaar na am nga ndam amoo ndam de waaye jàppal na ku la gañe dakaar nag moo la mën boo defee bañ gañ la dakaar ka la gañe dakaar bu amee antenne fa nga gañe moo lay daan delloo lay seen xel te gëm yàlla te xam ne yàlla noppi na bu yàgg kon damay wax ne c'est pas trop tard pour bien faire ñi doon def loolu nañ ko bàyyi borom kër gi dafa na nañ yaatal rigueur taxul kër dox maslaa la sénégalais xam ak euh, neexantal waaye doo ñëw ne lii mooy am par la force RFM du RFI RFM du RFI wax ji nag da nga koy jàng bu baax RFM du RFI fee ay tubaab la fii ay nit ñuul la nañu maslaa waaye ñaawlu naa ko bu baax a baax a baax ndax rajo bu nekk fii nga fiy liggéeyee nga am ndam faale wuñ la lijjante wuñ la yónnee wuñu journaliste lu ñuy xaar nga woo leen déedéet revue de nañ ko ñëpp yëg nañ ko ñoo war a ñëw nag defuñu seen liggéey dañ leen koy wax ñoom bu ñu defal suñu liggéey dañ ñu koy wax man tamit maa leen koy wax ba àdduna yëpp teema ko jërëjëf mbokk yi ñu daal di delluwaat suñu émission Kouthia Show mbégte ak contentement bu mag ziar nañ ko moom Serigne Habib Gueye Mouhadamu Serigne Mansour si moom nag ci boppam yàlla ñu ko yàlla ñu ko ñaanal jàmm ak gàmm gu neex waaye moom tam ñu ngi préparé journée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le 6 février 2016 foofu nag ca jaxawur de base en face ca këram euh, waxtaan bi nag Serigne Mané euh, Serigne Mame Malick Sy bu Serigne Mansour si moo koy amal ñu ngi kontaan bu baax ci moom Serigne Habib gay di am mbégte ak contentement bu yaatu ci moom waaye ñuy bàyyi Fall borom euh, borom conteneur yi nekk ca Parcelles Assainies unité 26 en face euh, stade amitié de la part de Toutou euh, ci boppam xam naa ne ñàkkul am conteneur ca biir am na lu mu ko fa indil cadeau loo xam ne nag daf ko ko bañ a jox mu bëgg mu gaaw koo jox moo taxit Baye Fall bu fekkee ne li nekk ci conteneur bi da nga ko war a jox Toutou daal jël gaaw jox ko ndax sa Parcelles Assainies unité 26 ma ngi la cay nuyu bu baax a baax moom ci boppam. kon tutu moo fa jaar ci Baye Fall borom conteneur yi ñuy am mbégte conteneur ci Cheikh Omar Bachir Tall nekk ca Wakaam ajjuma ji passé le vendredi wax dëgg yàlla quartier Wakaam ñëpp a génn ndax bégte contentement bi ñu am ci euh, quartier bañ ko buñ tuddee di Cheikhou Omar Tall foofu ca tenue p moom Cheikhou Omar Bachir Tall di nit ku yàlla baaxal bég na lool ci mbooleem koo xam ne yaa ngi dëkk ca quartier ba ci teew bi ñu teew keroog ci àjjuma ji ak ca bés ba lañ fa def yëpp yëpp yëpp mu ngi koy rafetlu di delloo ngërëm population bi ñu ko wuysee ak ñaan ñu fa am yëpp ci yokkaam ak li ko wër yàlla na fa yàlla saxal jàmm moom la ñaan yàlla ko yàlla nangul loolu nga xam ne waaye ñuy bëgg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo teewoon keroog ci mbir di euh, télévision Futur Media euh, ñuy gërëm ki nga xam ne nag moom mooy Ndiaga di directeur euh, ci boppam fii ci télé bi ñu koy remercier ndax joxe na ndigal tamit pour ñu yónnee Euh, ñu am caméra ak euh, euh, li nga xam ne moom mooy yóbbu journaliste yi ak ki nga xam ne moom mooy cameraman bi waaye tamit ñu remercier Aïssatou Diop Fall mi nga xam ne tamit dafa yónnee rédaction ba Aïssatou Paye mu daal day ñëw couvrir affaire bi Ibou Diouf man tamit ñu ngi koy remercier ndax ñoom ci télé bi dañ nekk télé bi wax dëgg yàlla def nañ seen devoir ndax jàll na ci journal bi mu ah Modou ah. mooy cameraman bi moom moo ñëwoon ñu ngi koy remercier bu baax waaye tamit di remercier rédaction bu Télé Futur Média ca télé ba journaliste yëpp def nañ ci liggéey bu rafet Aïssatou Paye def nañ ci liggéey bu rafet ci ndigalu Aïssatou Diop Fall waaye tamit di gërëm ki nga xam ne mooy Ndiaga Ndour mi nga xam ne moom tamit yëg na mbir mi Birane Ndour Mamadou Ibra Kane woo na ma Youssou Ndour ci boppam tamit woote na gërëm lu rafet lu li yëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko wax nag euh, ci ñi nga xam ne ñoo ci communiqué wul rajo ba la waa rajo ba ñoo ci communiqué wul waaye ñuy gërëm tamit waa Walfadjri ñëw nañ fa di gërëm tamit Zik FM ñëw nañ fa Sen TV ñëw nañ fa Africa 7 euh, ñëw nañ fa rajo yi bari ñëw nañ fa couvrir mel num rajo moo fa ñëwul mooy fi may liggéeyee ñoom ñoo fa ñëwul loolu nag ñu koy ñaawlu te di wax nag tamit wax dëgg yàlla bu mu amati mukk mukk mukk ndax loolu kenn du ko def waaw suul kër kenn du ko tere feeñ nit bu ñu la joxee dara danga koy yemale ñëpp éthique ak déontologie madame ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkul liggéey ñoo ñëw couvrir ko ak semence ñu fi ñëw kon gërëm nañ tamit Pape Lam photographe mi nga xam ne tamit dafa bàyyi liggéey bu am ñàkk fa xaalis bu bëri ñëw couvrir ko photo ko à la place loo xam ne ñeneen ñi ko waroon def ñoo ko def mais Pape Lam da ko def ci turu pas boppam mais turu group bi nga xam ne moom la nekk ndax loolu la fa représenté woon kon photographe def liggéey bu rafet di remercier tamit bu baax ministre des affaires étrangères bi nga xam ne moo jógee Niger daal di koy teewee moom xeebul bés bi di am mbégte contentement ci ñi fa teewoon yëpp ci journaliste di gërëm tamit une fois encore groupe Walfadjri bi nga xam ne yónnee nañu délégation ci euh, journaliste yi ñu daal di couvrir affaire bi ñu koy rafetlu bu baax a baax a loolu dafa am nit moom bu bul xool rek ne kii fi la nekkoon nekkatu fa kenn du bind ci ay mbiram kon ñi nga xam ne ñoo nekk foofu bu ñu ko defee dañu naan ah kon ñee def ñu ko bu ñu ko def gërëm nañ leen sant fexe ba lépp daal nekk ci yoon ndam moom équipe na équipe moom buy équipe buy fubal bu bu benn joueur dugalee équipe ba yëpp a gagné waaye def loolu di rafetal ndax dafa am solo ñoom rigueur nañu wax waaye rigueur moom taxul tax nga xam nit ki li nga xam ne dañ ko war a biral ca kaw moo tax ñu ngi gërëm bu baax alaaji Cerno Bokar Kande chef religieux nekk ca Kolda ak Moussa Balde président conseil départemental bu Kolda directeur général Sodagri sama soppe la di gërëm tamit euh, Assane Gueye journaliste def na benn chronique bu am solo ci maanaam euh, euh, humour ak maanaam nit bégal doomu aadama daal dafa am solo trop maanaam nit kuy fas kanam wala kuy mer rek boo moytul sa fan day gàtt ndax li lay rey ci biir lay nekk te doo ko gis kon nañuy rafetal affaire yi di gërëm tamit bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy teewoon ñëpp ak ñi ci wax wax bu baax yëpp yal na yàlla defal jàmm ndax tamit dëgg yàlla dafa jot pour ñuy jàppale ñu fi liggéey loolu dafa baax gis nga àddina amul solo waaye ñu jox la poste rek nga def sa bopp gendarme rek ku la neexul nga ndulli def lii loolu baaxul loolu nit du ko def kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ndax li ñuy def fii xaalis bi fi dugg TFM la jëm jëmul suñu poos ñoom lañ ci compal rek fay ñu te lañ ñuy jox xeebuñu ko ndax ci lañuy dimbali suñu bopp ak suñuy njaboot ñu gërëm ñëpp nag di leen sant léegi nag dañuy dem ci cool yi nga xam ne moo am xam nga cool yi lan la Stéphane Madar ci boppam journaliste bi bind bind gu rëy ga te Lamine Diack la ma wax li Lamine Diack wax moom da koo dëpp changé ko bind ko ba pare ëlbatikuwaat waaye kii moo am fit laa <laughs> ilaaha illallaah ñu seeti Stéphane Madar maa ngi nuyu nag Sidi Kane benn étudiant la ma nga ci université xale boo xam ne dafay xeltu bu baax idée bii nga xam ne moom lañ def tey moo ma woo téléphone bind message ne ma grand waxal ci état islamique bu Yaya Jammeh waaye waxal tamit ci li nga xam ne moom mooy Stéphane Madar ndegam fans la comme que fans yi ñoom ñooy dem bay bind nañu waxal ci lii moo tax ñun idée fu mu jël dañ koy jëlee lii ñuy def tey nag du suñu xalaat xalaatu benn étudiant la ba toog ca cité di Sidi Kane étudiant moo ñu jox xalaat bu rafet bii nañu grand tey ak loolu munti def xam naa ne sa prix bi ngay wax waaye dugal ci Stéphane Madar kon chapeau à Sidi Kane nañ dem seeti ki nga xam ne moom mooy Stéphane Madar ki bind joolu rëy la ba yëgal àdduna le monde s'effondre <laughs> sur le dos de Estefane Madaar <laughs> waaye Estefane bàyyil sos te xam ne àdduna amul solo Estefane Madaar bàyyil sos te xam ne kii merci merci euh, euh, d'accord euh, j'ai fait bouger Sénégal en moins de vingt quatre heures c'est moi qui ai écrit l'article sur Lamine Diack disons que de Macky Sall c'est moi qui l'ai écrit et je pense que ce que j'ai écrit c'était de la vérité c'est pourtant en de presse j'ouvre les discussions mboq tuuti encore ci olof man ma bind coow li am ci diggante Lamine Diack ak euh, Macky Sall man la sama yaram tàng ma ritaxal euh, euh, ni laalo mbëpp ritax tamit kon diwlin bindi ko waaye am na lu ma ci fekk kon ibi na micro yi pour tontu seen laaj te ngeen laaj ma ko nank parce que gàcce dafay rëy. bonjour monsieur Stéphane. oui bonjour. c'est Mamadou Ibrahima Kane de la radio Futur Média. jërëjëf oui oui Mamadou. mais monsieur Stéphane. Pourquoi osez-vous accuser Lamine Diack, euh, président de la IAF, d'avoir financé euh, euh, le président Macky Sall lors des élections passées, or que c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu t'es revenu en arrière pour dire que bon, tu as fait une erreur. Pourquoi cela? oui, oui Mamadou tu es un collègue journaliste mais vous savez que euh, au début euh, l'information est tombée euh, est tombée dans sous mes yeux j'ai écrit l'article moi et Stéphane Nadar parce que dans le procès verbal de ce que disait monsieur Lamine Diack on m'a dit que monsieur Lamine Diack a bien dit c'est lui qui qui a financé mais j'ai pas écrit Macky Sall j'ai écrit il y a certaines personnes que Euh, monsieur Lamine Diack a financé dans l'opposition sénégalaise euh, les élections 2012 mais le, nom de Macky quand je l'ai créé c'était au brouillon je je je, au brouillon mes amis l'ont tiré c'est sorti dans le monde mais je l'avais écrit au brouillon en crayon noir. monsieur Stéphane t'as créé beaucoup de bruit au Sénégal. Mais pourquoi cela? Oui parce que euh, je disais que. Macky Sall était euh, dans l'opposition et euh, euh l'ami Diack euh, n'a pas cité le nom de Macky et j'ai pensé que c'était lui. Je l'avais écrit en crayon, en brouillon, mais pas pour l'écrire euh, directement dans le journal. Je l'ai écrit en crayon. Je m'excuse parce que le président Abdoulaye Wade avait dit le wax waxeet la wax waxeet wax dara dellu ci mais ngeen foog ne nit ku ñuul journaliste yi rek am nañu ci wax dëgg am na ñu dul wax dëgg man mii. en tout cas tous les Sénégalais sont en colère contre toi. oui je sais je sais monsieur Lamine Diack est un grand monsieur au Sénégal. oui je sais mais ce que a dit c'est ça que j'ai écrit mais c'est moi qui écrit le nom de Macky Macky n'était pas cité par le président Diack. Euh, Macky n'a pas cité le président Diack je m'excuse euh, depuis euh, deux jours même François Hollande m'a appelé pourquoi tu as fait ça. je m'excuse en wolof. monsieur Stéphane Madar. oui euh, ñi ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi fay. dégg nañu ne dégg nga olof moo tax ñu bëgg laa poser question bi ci olof. oui. li ma sama waa ji laaj léegi nii Mamadou li mu la laaj ci en français laay laaj en wolof. oui dégg naa wolof école Bassin Goumba laa doon jàngi. ok Bassin Bassin Bassin Goumba oui fa lay jàngi. benn tali. benn tali ah. léegi ñu bëggoon a xam lan moo tax nga sos li nga sos bind ci Lamine Diack bind bu ñaaw boo xam ne. àdduna mën na ci yàqu réputation mën na si yàqu deram mën na si yàqu te nga xam ne Sénégal dëkku sutura la dëkku teraanga la te Lamine Diack ci lu baax rek la ko ñëpp xamee ñu bëggoon a xam lan moo la xiir ci sos boobu xanaa dafa am ku la fay pour nga bind ko wala da bëggoon buzz ndax bu dee buzz nga ci wut am nga ko ndax àdduna bi yëpp ñu ngi tudd sa tur te bokk nga ci journaliste yi nga xam ne seen tur kenn xamu ko woon est-ce que loolu nga ci doon wut Stéphane Madar nga leeral ñu loolu gécci bu la jéppi sa Deus bu ma gisee dama amoon si kii mu o waaye dama ko wat pour ñu bañ ma xami parce que gëcci gi ma am munu ma ko wax ku nekk bi may koy bind je dama bind ni euh, dama dégg ñu ne Lamine Diack mu wax ni am na ñu mu doon jàppale ci opposition Sénégal pour ñu daaneel Macky Sall donc man loolu pour ñu daaneel Ablaye Wade et dama gis ni Ablaye Wade Macky Sall ko daaneel ma yaakaar ne Macky la financé waaye Ablaye Wade moo waxoon wax waxit man Stéphane Madar maa waxoon waxit ah oui man maa waxoon waxit sama lamin biiri tax na kon leelu mbépp sama lamin biiri tax na kon huile moteur sama lamin biiri tax na kon suppu kanji sama na kon diwtiir je vous dis que man Stéphane Madar Stéphane Madar maa ngi rëccu maa am gàcce maa ngi rus ku nekk ma wut ci àdduna bi tous les présidents francophones m'ont appelé pour me dire que tu ne devais pas écrire ça ruus na. Hmm? monsieur. oui. salamañ bi daara tax ba mel ni suufu kanje. attention salamañ euh, parce que je m'appelle la raxase sama lamine. parce que Lamine Diack mu ngi tudd Lamine man Stéphane Madaar sama Lamine bii nii Madaar di raxasee lu tilim dama raxas li ma waxoon s'il vous plaît. kon jëlal Madaar raxas ci sa làmmiñ. oui oui man Stéphane Madaar. jëlal Madaar oui. raxas ci sa làmmiñ. oui Madaar. jëlal ni gati gati ni gati ni gati gati ni gati ni gati rita way rita way madame way rita we gati we gati Diatou Lamine baal ma Diat baal ma way Lamine baal ma Diat baal ma maa waxoon waxit maa waxoon waxit maa waxoon waxit maa waxoon waxit maa waxoon waxit wii yooy wii gati wii wii gati wii yooy wii yooy wii wii wii maa waxoon waxit Lamine baal ma la waxoon waxit Lamine Jool ma jaag oui maa mën a meew maa mën a meew maa mën a sos waxu ma woon